jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision DTV c'est une émission diisoo am mbégte indi beneen gan ci sunu waxtaan ngir waxtaane réew mi ci beneen anam ndax tay ñu ngi waxtaane groupe Excaf Telecom, entreprise privée euh, ci Sénégal ay Sénégal di ko gérer ñu bëgg waxtane groupe bi ak directeur général bi président directeur général muy euh, Sidi Diagne ñu bëgg a waxtaanee TNT muy euh, li nga xam moo jëm ci wàllum jóge ci analogique dugg ci euh, numérique ñetti at ban ko lancé ak léegi projet bi ana fu mu toll ak li ci xew lépp ñu bëgg ko waxtaanee incha allah dañuy kon gërëm gan gi muy PDG groupe Excaf Télécom jot bariwul waaye ñu bëgg waxtaan tax nga nangul ñu ko ma la nuyu baax monsieur Diagne.

ñu bëri euh, xamuñu Excaf nu mu soqe ko Excaf léegi am na quarante 45 ans euh, avril 1972 lañ ko créer mu ngi dox ba ñëw 2017 euh, ñu ngi ñaan yàlla tamit fii ak ay ati ati at muy kon ne di exister mais lu tax ñu gën ko xam tamit dafa activité dafa bëri ñu ngi commencé woon si tudd ko

entreprise yu bari euh, def confiance pour l'installation def installation de stand ah foofu la turu escaf escaf en fait euh, lu koy euh, firndel moy Expo Carrefour Afrique abréviation tout euh, escaf parce que organisation de foire et salon mhm. foofu la réellement société escaf démarré foofu la démarrer ñu y avait beaucoup de de demandes sur communication ñu a ci une imprimerie ah, après euh, développement Sénégal et ay radio IBI. Ah, euh, c'est la radio Dunia. Mhm. Euh, IBI. donc évolution du Sénégal est-ce que na si loxoom bu mu bu participer. Mhm. donc aujourd'hui nous sommes 507 personnes Nous une mhm. activité euh, deux télé y a ko tudd DTV pour ma RDV nous avons quatre radios à Dakar Radio Dunia Love FM Soxna FM.

Euh, le gouvernement du Canada avait offert, dans le cadre de la francophonie, un mhm. euh, émetteur TV5. Nous, avons ko que euh, Ibrahim Diagne Ibrahim mu ne pouvait ko installé parce que tant que nous avons doon antenne parabolique. nous mhm. avons installé ay kilifa du ko installé pour xam une chaîne nañ moyen pour chaîne mhm. étrangère. chaînes étrangères yi. euh, sénégalais dafa nekk kenn ku xarañ. donc lu avons xam-xam màcc na si loolu moo antenne TMS mu ngi koy def tamit. Mhm. amuñu ben monopole on l'a mis def ko Sénégalais 17 ans yeneen chaîne étrangère yi. étrangère. ça participé également à au développement si euh, mbirum audiovisuel au Sénégal. Mhm. donc. Euh, voilà danaka comme ni nga ko en l'air, PDG parce que boo expliquer le groupe. Excaf Télécom la ñu créé depuis 1972 mais dox 2007 2017 kon xam nga ni yàgg na mm-hmm. du xale léegi ba pare yaa ngi indil fi mu jaar ba toll fi tey yaa ngi ma expliqué sànq TV5 ak ni ngeen amee woon lëkkaloo ak Canada ba tey installé fi TV5 Sénégal foofu laa bëgg a ñëwee ci groupe bi li muy développé. mais pour pour plus de précision. Mm-hmm. Euh, c' est l' du Sénégal moom moo lëkkaloo Canada. mais daf ko dénk doomu réewam. Mhm. pour mu installer ko pour sénégalais mun si profito. mais on n'avait pas euh, de de contrat ou de convention mhm. directe C'est dans le cadre de la francophonie te loolu mbirum état la. état la waaye pour mu voilà c'est important li nga leeral noonu léegi bëgg a ñëw ci beneen mbir boo xam Excaf mi ngi koy développé ngi doon wax sànq ci mbirum li fi liggéeyee. 507 mhm. personnes 7 personnes kon juróomi téeméer liggéeykat. ak juróom-ñaar ñu ngi liggéey ci groupe Excaf Télécom kon bokk ngeen ci ñi dugal seen loxoom ci lijjanti la ju am ci mbirum xëyum ndaw ñu ci biir Sénégal kon yéen a créé emploi ci biir réew mi kon entreprise la boo xam te ne bii am na fu mu féeri sénégalais yi beneen mbir mooy mbirum antenne MMDS. Mm-hmm. ñu koy wax xëy na décodeur Excaf yi euh, loolu tam bëgg naa ci ñëw un peu ngir sénégalais xam ko fu mu toll avant ñu dugg ci mbirum TNT bi nga xam mooy yees ci biir Sénégal. waaw boobu ñu yëngu si affaire TV5 euh, pendant. Mm, quatre cinq ans. Mhm. nit ñi doon jën jën seen antenne di seetaan télé. boobu temps amuloon ay décodeur da nga doon jënd antenne rek di seetaan. Mhm. Euh, bien évidemment euh, état bi euh, ne day lancer appel mhm. comme ça ñi si jëngu mu ci gis seen bopp. si période boobu Excaf soumissionné. yàlla may ko mu gagné. et ñu mun aujourd'hui def MMDS bi donc. bu ñu wax ci euh, affaire MMDS. Mhm. Euh, lu ñu ci jublu mooy euh, seetaan télé warul nekk lu cher parce que day yokk nit ñi ñu koy seetaan xam-xam. Mhm. day yokk yombal sunu gouvernement. Mhm. ñu mun éduquer sensibiliser informer seen population. parce que xam xew ci yeneen dëkk yi tamit am na solo parce que di nga xam tamit di nga ci nga nekk baax na. di nga xam tamit est-ce que li ngay def gënul ci yeneen dëkk yi. dina xam nga xam lu luy aduna di di di di doxee waay c'est important voilà fofu laaj ñëw nak ci mbirum euh, li nga xam moy TNT moy mhm. télévision numérique terrestre ni nga ko waxee sànq Escart dafa yag yëngu ci wàllum télécommunication installé mhm. ay antenne am ci équipe bu xarañ ci walum technique lolu motax bi état soxla jóge ci analogique dugg ci numérique Escart gagné projet bobu mhm. d'abord fàttali projet bi ñaata milliards lay moy avant techniquement. non euh, c'est d'abord ça. sax euh, état euh, état du Sénégal. Mhm. mon signé des engagements sur le plan international. Mhm. c'est une obligation pour les pays du guichet analogique. Mhm. dem si numérique. lolu il faut mouler déjà. et lolu depuis 2006. le que état yi donc. bu xam ne jotoon na pour état yi def ko euh, état bi dafa c'est pas parce que ñun Excaf euh, Sénégal lañ nekk ñu jox ko noonu benn appel d'offre la def. Mhm. appel d'offre boo xam ne 23 euh, sociétés participer nañ ci. 23 23 donc ñu xool ne. proposition yi yeneen sociétés yi def. Mhm. ak bu Excaf def ñu éduquer ko. étudier déjà na ñii euh, est-ce que mën nañ ko def wala euh, am nañ xam-xam bi. Mhm. sur le plan technique bu ñu koy defee tamit yenn équipement la ñuy utiliser ñenn nit ñoo leen ñoo leen engagé. Mhm. est-ce que gannaaw Excaf amul yeneen société yoo xam ne bu ñu ko joxee ñii dinañ ŋànk suñu audiovisuel loolu yëpp gars yi saytu ko ba xool ne ndëgam ñii mën nañ ko def sur le plan financier tamit du parce que Excaf la rek doomu réew mi rek ñu ne am jox leen ko ko. gars xool nañ tamit ndëgam mhm. ñii am nañu suffisamment financement bi pour yeggali ko donc. Euh, bu ñu wax ay projet wu 40 milliards euh, amoon na ay banques yu ne woon euh, bu dee yàlla may ne leen ngeen gañe dina accompagner daanaka banques yooyu joxe ay kayit ñu ñu ñu ay ay papiers yu nga xam ne ñuy war a xool dossiers yi. Mhm. ne ah kon bu dee kii d'accord na si wala kii ànd na si xëy na bu condition yi yëpp. réuniré mhm. du am problème pour pour yeggali ko donc c'est dans ce cadre ñoom ñu ne ok Excaf mun na ko def léegi ñu ne. Euh, ci ban anam. Mhm. la signé ak Excaf man la mooy proposition Excaf ñu suñu proposition lenn la ñu ne euh, état bi. Mhm. euh bëggu ñu seen dërëm dugg ci bu seen ben dërëm dugg ci projet bi mo ni état. waaw bu seen dërëm bu dugg ci projet bi. bu dugg si projet c'est nous qui avons pris l'engagement. loolu défi bu rëy la. ñoo né investissement bi mun nañ ko trouver buñ ko trouver tamit banque bi ak banque bi lañ siy andal mhm.

tamit teg ñu ay conditions yo xamné ne wóor na que étape bi war ngeen teg fi et cetera bàyyi ñu rek wa wa def leen lu leen neex. amna ben benn cahier de charge bu ngeen signé ak état. état bi war ko respecté. war ko respecté mhm. parce que au delà de diffuser. euh ay signal bi rek. Mhm. il y a également des services yo xamné aujourd'hui mbirum par exemple euh, lum ko mën a waxee mesure d'audience mhm. ñu xam ban télé lan lay sétane ban mo gën ci télé bi ban mo jël pay ban mo ki et cetera mhm. war na ci and mhm. ñi tamit war nañ nekk si benn euh, mbirum TNT euh, l'ensemble des services à valeur ajoutée mun na jaar ci TNT bi loolu yëpp tamit bu may ñëw man pour waxtaan ak nit ñi parce que bu ñu defee présélection yi ci table bi sama partenaire yëpp ñoo ñëw ah, tok ku nekk fan bi nga wara intervenir mu expliquer force sa jaar-jaar wax sa expérience ba xelu état bi dal euh, je pense que euh, toutes les conditions étaient réunies pour projet bi nekk un, véritable succès voilà euh, lépp matoon na ngir projet bi mën a ci yoon ba fi mu tay. nii tey daanaka ñetti at boobaa léegi bi ñu lancé TNT euh, bi bu doon techniquement installation yi escaf def ndax actuellement couvrir ngeen quatorze régions du Sénégal yi wala des na fu ngeen toll ci installation techniquement. waaw euh, projet bi ñaari fànn la mooy d'abord euh, balaa population yi di jot décodeur bi du ko jënd di taal seen télé chaînes yi nekk ci Sénégal yëpp ñu mën ko gis mu nekk Dakar mu nekk euh, Koumpentoum wala mu nekk Ourossogui mhm. il faut que ñu def installation technique bi le plus gros défi pour ñun mooy prouver que mun nañ ko def. Mhm. branché décodeur yi jënd ko indi ko installé ko te nga gis ne ay doomu réew mi rek ñoo si nekk. ay sénégalais rek. ay sénégalais rek ñoo ko def. ñoo def installation yëpp techniquement. boobu ba muy jeex ay sénégalais rek ñoo ko def euh, waree na que euh, Sénégal dafa nekk dëkk bu bu bu tuuti bu rëy en même temps. Mhm. tuuti na si en nombre de de d'habitants. Mhm. mais rëy na si suñu xam-xam parce que xarañ na si lu bari. Euh, te àdduna wër na wër na benn boo xam ne kenn mënul ne maa am monopole savoir bi. expérience ñun suñuy doom euh, ñu ngi jàng à ñu ngi am ay xam-xam euh, ñu ngi jàng fu école fu mu gënee ñu ñëw si dëkk bi pour daan seen doole wane seen xam-xam wane seen mën-mën te tamit dëkk pour mu avancer il faut que euh, seen doom am jom te loolu tamit yaakaar naa fii kenn manqué wu ko donc pour revenir à ce ce cette couverture mhm. aujourd'hui sur les quatorze régions daanaka ne Kolda ak Sédhiou la ñuy yeggalewul

weer yu néew tam ñep dina mat année bi mom foog na ne lépp dina si par la grâce de Dieu. année 2017 bi 2017 bi mais lu gënoon important mooy euh, bâtir l'infrastructure. buñu bu l'infrastructure moy fournir population bi ay décodeurs moy liggéey buñu ñu def euh, population muñ ci si donc gis né bon euh, image yi na son bi nickel na et même suñu confrères yi gis né ah fu ñuy yobbo sen seen télé si par exemple ko xamné Dakar ngay Touba Kaolack Louga Saint-Louis image son bi dégâts bi ñu lepp ñu gaay également donc lolu euh, nekkoon grand défi té lolu tamit euh, ak service état yu bari Euh, chaque fois bu ñu paree dara ñun dañuy ñëw vérifier ndegam lu ñu ko branché lu ñu waxoon ci kay de charge bi respecté nañ ko. Mhm. tout dernièrement amoon nañu euh, visitu kooku ñu jaay émetteurs yi. Mhm. parce que tamit loolu il faut mu am garantie. ah ñëw xool ndegam certifier est-ce que norme yi ñu diglee pour seen équipement mhm. respecté nañ ko. est-ce que groupe électrogène bi ñu fa teg euh, nu ñu ko tegee c'est à l'abri de la poussière émetteur bi protégé nañ ko xool loolu yëpp délivré nañu benn kayit boo xam ne wane na que ko defee ñoom buñ ñëwoon sax di ko def. wala mu nekkoon benn chinois wala mu nekk benn américain wala mu nekk benn français duñ ko defeewul nuñ ko defee donc euh, amul benn euh, sikk sàkk si loolu. Mhm. kon daal euh, groupe Excaf Télécom installation yi ni mu déparé woon ñaari gox moo des ngir mu pare muy Kolda ak Sédhiou. ci lee mu pare dana pare ci li fekk at mi di jeex muy dem di sa tëgee mhm. ci mbirum installation techniquement kon lépp fete na boor daanaka mais nag mu ñëw ci mbirum décodeur yi. Mhm des fois des coups des riz, des problème rupture L'autre un peu ndax gisoon nañ fi ay décodeurs yoo xam te ne bi ay commerçant ñoo ko jëlee Dubaï indi ko Sénégal di ko jaay léegi gis nañ ni dafa am euh, cryptage bu am région yi bu nekkut léegi Excaf euh, bu nekkut décodeur du duutoo am signal li nga xam mooy réseau TNT bi hmm. loolu lépp loo ñu mën a expliquer un peu pour consommateur bi jëfandikoo TNT mën a comprendre ci ni lan moo xew exactement ci mbirum décodeur TNT by Excaf waaw xam nga euh, lépp si njëlbeen bi la hmm. Euh, suñu waxtaan ak gouvernement bi moo doon ñoo doon naroon def investissement bi xam boy def investissement tamit il faut nga jël ay matuwaay yo xamné c'est mhm. investissement war nga ko mën récupérer té fuñ koy récupérer tamit moy jaay abonnement mhm. abonnement yi buñ koy jaay amul ben obligation suñ en plus euh, ñun ñoo wara def proposer ay chaîne yo xamné mhm. dina neex nit ñi ba nit ñi gis seen bop donc amul ben obligation aujourd'hui euh, nit ñi pour ñu seetaan télévision nationale kan du fay c'est gratuit Euh, même bouquet de chaîne bu leen di proposer amuñu benn obligation pour ñu jël ko. Mm-hmm. donc risque bu énorme la Excaf jël. mais euh, nu mu ko waxee tamit euh, am nañu expérience ci loolu. décodeurs yi prix bu ñu ko doon jaayee ñu duñ si génn lu ñu si dugal mooy duñu xalaat ne sénégalais mm-hmm. bu jotee décodeur nu mu gën a gaawee peut-être que ñun tamit dinañ ko mën jaay abonnement nu mu gën a gaawee tout le monde sait que le Sénégal On n'est pas un pays riche, on est un pays pauvre. Ménage tamit, nous euh, avons euh, analogique. Nous avons un décodeur qui fait 25 000 prix. Nous avons peut-être que si nous avons un décodeur de 10 000 francs, euh, nous avons et puis nous avons un abonnement sans obligation. Mm-hmm on s'est rendu compte que beaucoup de choses à faire dans la mesure où en face de ça dafa am ay pratiques euh, tôt tard il faut que les euh, il y a les câbles à nga setan, redevance, une redevance. un contrat éditeur, Euh, émetteur bu doxee xooluñu ko seen émetteur bu doxul et cetera ils achètent dix décodeurs branché ay quartier ay quartier euh, comme Sénégal temps yi neexul te bëgg nañ lu yomb tamit. Euh, duñ kii il faut ñu xool ñun tamit ay matukaay lu ñuy jël. c'est la même chose également pour décodeurs yi. xam boo jëndee ñu liggéeyal yëpp parce que émetteur bu nekk. bu nekk Kolda wala bu nekk tuba wala bu nekk Thiès. ça nous a coûté au bas mot 300 millions. Hmm? en termes d'investissement. Ben émetteur bu 300 millions il faut que je fasse l'électricité, fay électricité. il faut mu groupe électrogène. il faut am je suive, il faut que entretien il faut que tamit euh, réseau fibre optique bi mu yegg ba que charges hmm. il faut que ku le xam projet bi parce que bu ñu 40 milliards investissement ah investissement bo xamné assez lourd pour lolu yëpp mun nek aux normes internationales bo gissé ben commerçant dem euh, euh Dubaï mu dem Chine commandé ay décoder ñëw tek jaay ko fo jaayee 10 francs mu jaay 5 francs avec à juste titre parce que lu ci si fekk moom fekk ko si mom top to na dox na wala doxul. wala fo sax laa bëgg a ñëw parce que booy xool tey euh, dafa melni ni warona sécuriser projet TNT bi ndax nekul dafa xawa dess ci ni ko war a sécuriser loolu état la wala yéen waa Excaf la ndax tamit am nga benn marché war a jox askan wi ay décodeur mu am commerçant bu am sañ-sañ indi ay conteneur décodeur yoo xam te ne bi day falsifier sa décodeur di ko jaay askan wi loolu projet mënut ta dox na projet boo xam ay quarantaine de milliards quarante milliards la waaw bon euh, état matuwaay yu mu war a jël yëpp dans ce cadre là jël na ko mooy euh, génne na arrêté ni façon décodeur bi mu war a dugg si euh, dëkk bi. Mhm. moo war a euh, sénégalais yi si affaire euh, si dans le cadre du projet. Mhm. boo seetee tamit toll na ay diggante yoo di conjuguer investir pour émetteurs yi et ay décodeurs. Mhm. il fallait que ñun ñu def un choix la moo gënoon priorité pour nous mooy bâtir l'infrastructure, parce que sénégalais fu mu munti nekk am les mêmes chaînes qu'à Dakar loolu inégalité boo il faut ñu waroon si juk.

peut-être que c'est une erreur d'appréciation, mais également, euh, appréciation État, État de il faut avoir une couverture nationale en même temps. Les prendre en même temps. Les parrainage en même temps. Donc, d'ici j'ai l'expérience, mhm. les plus d'Ougou, euh, da ngay toog à un moment nga xool lan mooy priorité il faut ngay dugg teg sa tank. Mhm. te aujourd'hui tout nañ fenn boo pour amener, buñ ci duggoon ak xër tamit ah aujourd'hui xam nañ sunu bopp. xam nañ fu ñu jëm. Mhm. ak xam nañu xaar.

ñu gis ben article euh, ci ben quotidien de la place mu am lu wax ni fi toll ni groupe Excaf telecom dafa nekk ci ay jafe-jafe ba ay këram yi mu defoon sax daal di koy hypothéquer boo deful ndànk banque islamique dana ko teg loxo jaaye ko faye ko borub un milliard euh, presque cinq cent mille euh, lan moo xew exactement diggante Excaf ak ay partenaires am rawatina lu jëm ci wàllum banque yi. waaw xam nga projet bi toll noonu ay partenaires ñoo ko ñoo yore. ñun euh, bu ñu jël projet bi di lënkaloo ak partenaire ku nekk pàcc bi nga war a am wala nga war a def waxtaan see yow balaa ñuy entamé projet bi nga ñu d'accord naa si nga def ko euh, daanaka euh, projet bi banque islamique jàppale si bu baax a baax ñaari banque ñoon d'accord woon pour participer au financement bu ñu yàlla mbéyee ndam ba ñu jox ñu projet bi banque islamique rek moo si des beneen banque dafa bàyyi. dafa bàyyi waaw mais loolu euh, amul euh, benn incidence euh, très honnêtement si poursuite bi parce que deux ans après. yalla projet bu ñu naroon def en un an. banque bi ba mu désister c'est vrai que ay jafé jafé yu bari lañu lañu créer euh parce que benn banque bu bàyyee. Mhm. yeneen banque yi dañuy bàyyi. parce que dañuy ragal peut-être dañuy ragal parce que dañ kii nii bu bàyyee am na lu tax lu ñu waxul. lan moo xew ba tax mu bàyyi lu xew. non xam nga euh, ça s'est passé en fin 2014 début 2015. Mhm. donc euh, depuis lors euh, yàlla may nuñ ko même bu mu bàyyee ñu sentiruñ ko. Mhm. metti na trop. Mhm. parce que lu may wax mooy jom mooy yeggali projet bi. xam-xam mën-mën. ay pexe tamit. am na ay ànd jàmm yoo xam ne gëm nañ ko. Mhm. ay fournisseurs yu ñu def confiance ba ñu yegg fu ñu toll nii. et partenaires yu ñu def confiance ba toll fii tamit banque islamique si la bokk malgré lu ñuy dégg lu ñuy wax nii yëpp. Mhm. ah ñu ngi leen di gërëm. pour ñu jot bañ toll ni aujourd'hui buñ tollé ci projet bi ni def ñu ci dañ ci japp motax ñom banque islamique wa bak japp ñu ci ci loxo neen parce que jox nañ la garantie jox nañ la ay suñu hypothèque ay immeuble ñu am suñu pap luñ ci bayyi jox ki neen dem ñun tamit on a dû prouver que projet bi gëm nako parce que banque bala mu lay wolu il faut yo tamit nga gëm ne mu xam woor nako yo li nga fa nga jëm xam nga ko donc euh xaliss eh, bu suñu bayyi papa bàyyi woon tamit ñu dugal si projet ñu gis ne ñii tamit jar nañ jàppale parce que li ñu amoon ñu dugalaat nañ ko si biir li seen papa bàyyi comme immeuble comme kër ak yooyu ñu ko dugal si projet bi comme nii jar nañu jàppale leen mhm. da ngay toll fenn foo xam ne euh, banque banque rek la dina ñëw ne la ah mais yow euh, bien vrai que am nga problème suñu affaire fu ñu si tool mhm. nga expliqué ko donc euh, effectivement on a eu des incompréhensions par rapport à la lenteur du projet donc ñoom li ñuy war a def ñoom ñu def ko mais euh, waxtaan nañ si ak euh, euh, le chef de l'État le président Macky mhm. bu mu joxe des instructions ba FONGIP ñëw accompagner ñu. bu ñu accompagner tamit ñu jënd ay décodeur commencé du ko jaay toog ak banque bi wax ak moom ay wax leer. Mhm. ba lépp lu mu jàppoon mu teg su suuf ne ok léegi comme machine bi reprendre na décodeur yi ñëw na. Euh, signal boo xam ne ku jënd décodeur mun na ko jàpp teg ngeen ko si yoon respecté ngeen arrêté ministériel bi boo xam ne moo ne décodeur façon décodeur bi rek moo war a jàpp signal bi te ngeen ko si yoon dañ lañ ànd ba yeggali projet bi voilà il est quand même malheureux que euh, effort yi ñu def ñëpp mhm. ah euh, malheureusement édition journal boobu xaw ko fragiliser mënu ko yàq mënu ko yàq parce que dëgg moom dëgg rek la voilà euh, dëgg dëgg rek la PDG euh, mais bu fekkente ni tey euh, loolu amut maanaam lu xew dëgg-dëgg loo jàpp ni moo war a mën a tax ba ab journal di jekki-jekki génn def une mhm. nan wala ñeenti immeuble yu groupe Excaf mhm. banque islamique daf ko nar a jaay bu fekkonte ni tey ndax amut fu wér fu mu teg loxo looy expliquer sénégalais yi consommateurs yi jënd décodeur TNT mhm. waaye tamit say partenaires yi nga xam ni bi ñooy liggéey ak groupe Excaf Télécom ngir ñu xamni deug deug patrimoine bu Excaf nekkul ci ben problème nekkul ci ben danger. xam nga euh les problèmes yu ñu rencontré. Mhm. umpul ben sénégalais. euh amna ñu bari ño xamné investir nañu ay projet yu neew gëna neew ci projet bu ñu yor. Mhm. Euh, bu ñuy wax projet 40 milliards mën nañ ko compter si ñu koy def. mën mhm. nañ compter tamit entreprise yo xamné Sénégal. jël na risque bu toll noonu. Mhm. te benn dërëm benn euh, état bi dugg si. Euh, pays Afrique yi def TNT euh, yëpp. Mhm. état bi moo ko financé. fii ñun duñu toog ne mën nañ jël ce projet là jël mhm. investissement bi dugal ko suñu réew. wane loolu mën nañ ko def te am na ay pexe yu mun def. bu ñu toogee ba heure bii. ñu wax suñu pro kii day nur lu bees. waaw les projets qu'on a les difficultés qu'on a ñëpp xam nañ ko. te wax nañ ko tamit lu tax ñu am difficulté yooyu. mais bu ñu demee ba génn si. Mhm. Euh, c'est très difficile nga ngay ñu lay delloo gannaaw. di leen ne waaw escaf ñu koy kii. ku nekk ku nekk étape bu nu passé la. société bu nekk am na jaar raa bu mu jaar. Mhm. société bu nekk am na société yu bëri yoo xam ne am na problème yu gën yu raw suñu bopp. Mhm. suñu bos. te kenn waxu leen. parfois da ngay xalaat sax ne ñii est-ce que bëgg nañu ñu avancer surtout euh, ce type de jour euh, quotidien yoo xam ne ñu ngi leen di xaar fa leen man presse. fi lañ may yare bu doonee mënoo am deux télé am quatre rajo Dakar am seize dans les régions et départements te boo ko mhm. amul benn groupe de presse bu ëpp lu am à la RTS bien mhm. évidemment mhm. te euh, xam nga euh, sensationnel dañ ko war a parce que euh, boo bëggee informer ah, day am équilibre équilibre mooy ah dégg nañ lii ak lii ak lii la nga si la nga si xalaat ñu wax la lii lañ si xalaat buñ ko yëgee tamit lii lañ si def mais ay titres yu ñuy bind le groupe Excaf Telecom déposé, mhm. hein, par la banque islamique xam nga dépecé <laughs> hein, si ay ay animaux ay mhm. xar xar xar lañu lañu kii nii mhm. boo bëggee jaay sa journal da koy def de la manière la plus honnête qui soit. gis naa ngeen benn ngeen génne benn communiqué. Euh, di wax ni amul ben patrimoine bu Excaf bu nekk en danger mais aussi ma gisaat ni dafa mel ni da ngeen a ni dafa am ku ne ci ginnaaw. di pousse ñenn ñi ngir ñu attaqué groupe Excaf Télécom lan moo xew ba nga groupe bi xëy na mel ni ngeen jàpp dafa am ay noon ay lobby ñu am intérêt xëy na ngir projet TNT bëgg koo yàqal Excaf. xam nga euh, man euh, duñ déjà duñ gëm yàlla sunu kii bàkku mooy alhamdulilah. déjà donc du nit mun yëkkati. Euh, alhamdulilah da koy dagaat si suuf loolu mooy sunu motif d'abord. Mmh. motivation lu si tegu mooy euh, duñu xam fu ñu jógee duñu xam lu ñu yenu duñu xam fu ñu jëm euh, gàllankoor bu façon bu nekk mm-hmm. euh, gis nañ ko si projet bi projet bi buñ ko jàppoon comme benn projet boo xam ne doomu Sénégal moo ko yor mm-hmm. ñu war ko jàppale parce que bu si génnee ñeneen doomu Sénégal mën nañu am projet yu mel noonu peut-être yu bëri duñ duñ jàkk problème yu bëri duñ ko jàkkal tool mm-hmm. mais dafa nekk loo xam ne tamit warul yomb parce que projet bi buñ ko euh, réussir mm-hmm. euh, dëkk yu bari dinañ ne nañ def comme Sénégal parce que doomu Sénégal moo def seen bos nañ ko ji nii euh, du ñu nekk tamit di di di ne nañ favoriser Sénégal parce que bu ñu koy jox kenn mayuñu ko. Mm-hmm. appel d'offre la ñuy participer def suñu dossier kenn ñu dara.

du am benn noon xëy na. non xam nga xam nga euh, déjà euh, projet TNT dafa nekk benn projet bu particulier chinois mënu ko yor français mënu ko yor. Mhm. parce que archive nationale audiovisuelle du Sénégal ah état Sénégal moo ko moom. donc duñ ko bàyyil ay français wala ay chinois wala ay marocains di ko mhm. yor lu may euh, wax rek mooy nit ñi war nañ xam ne que projet bi du projet Excaf projet état du Sénégal la mhm. projet sénégalais la. projet pour Sénégal la.

ñu bëri dinañ ko xeex parce que boo amee dara lu intéressé ñu bëri ñu bëri dinañ la xeex donc te xeex boobu tamit eh, nañ ko teg si yoon rek mhm. nañ teg si yoon parce que ñun euh, bu ñuy ibbi suñu société dañ ko lal si ay convention état moo ñu autorisé mhm. état ñoo mooñ ne boo jaaree si lii ak lii ak lii ah, nga mun exercer sa sa activité mhm. te loolu rek lañu ñaan état pour mu respecter ko pour ñëpp voilà euh, yaa ngi tudd sàng mbirum euh, ay concurrent xëy na dafa mel ni Excaf bi nga tuddee sànq réseau câble yi nga xam ñu ngi partout Sénégal loolu du ñàkk pexe dina ci am ni ngeen crypté décodeurs yi nga xam moo doon jóge Dubaï dugg ci Sénégal ba amatul signal ndax pexe état mën na ko am ci les réseau cable mais beneen concurrent bu taxaw di xëy na yàq projet bi ni mu war a doxee mu yeexal ko am na keneen muy canal canal plus euh, canal moom dafa mel ni seen concurrent bu taxaw la fi mu toll ci biir Sénégal Wow, mais c'est normal parce que ñom lu ñuy jaay mom lañuy jaay. Euh xana tay sax lay nek ay concurrent hmm? parce que amna jamono yo xamné euh ñu nekkon seen premier euh client ñoo ñoo ñoo ay jaay ay chaîne pour ñu duggal ko CMMDS bi. Té fact ma ngi fatali ko que lu leen di fay ñun hmm. par at hein eh, bu ñu dajaloon pays africain yépp ñu ñu leen di ëppalé ñun hmm? rek escaf ñu nekkoon seen premier client en, Af en eh, Afrique mais jamono day dox on se rend compte que euh, nous y traiter les Sénégalais, non les avons traité. Moi, une chaîne qui euh, euh, 20 centimes d'euros, nous avons déjà 80 centimes d'euros. Si vous allez directement sur la chaîne, vous allez avoir 20 centimes d'euros comme nous. Nous allons nous 80 centimes d'euros, nous allons nous faire si si vous Donc, il faut que nous ayons une relation avec nous. Mhm. Mais, les femmes, euh, deuk ay loi ak règlement moko moko lal il faut ñu respecter ko mhm. euh tay canal euh il faut mu respecter euh, les lois sénégalaises ñun amuñu amuñu droit dem euh, par euh, France mhm. créer fa ben bouquet diko ko jaay te jaaruñu sen loi il faut ñu respecter ko la loi la loi la loi est claire la loi dit que mhm. boo amé convention ak état bla convention bi di dagan il faut que ce soit approuvé par décret et publié dans le journal officiel. le canal amuko. Hmm? le canal amuko. La loi dit que euh, les chaînes euh, nationales du Sénégal hmm. doivent être en clair au Sénégal. Yo, tu es mon découvert de canal, bon fait le abonnement, de mon en RTS, de mon un 2S, de mon en CNTV, TV, de mon en Wolf, Sibir canal. Mm -hmm. Aucune chaîne nationale doit être vendu au Sénégal parce que si on buñ ko mhm. rien n'empêche euh, TFM ne ah man damay jaay sama sama chaîne pourquoi pas parce que nous sommes tous les canal. les chaînes nationales je pense que doivent être euh, gratuites. et que la loi doit être respectée. Ben sénégalais vous êtes a bëgg de chaîne nationale nationales yi di fay ngir ko sétane non non non non aujourd'hui la loi est est très claire là-dessus maintenant xam nga. Euh, on a euh, une, avancée sur le plan de l'audiovisuel. Mhm. Peut-être les lois ne sont pas encore euh, votées, ne sont pas encore euh, réellement approuvées mhm. Peut-être ce vide juridique, vous, les nous profitons. Mais ça fait quand même depuis 1991 que ça dure. Nous avons un engagement, nous avons ben buñ ci respecté. Mhm. Amul ben buñ ci respecté. Ñu koy tok di sétane nak mi law di law di law. Té chaque fois

yu ngemb canal ba tax mu dugg ci réew meeg doole bëgg a jalgati yoon. xam nga euh, li nekk sa ay loi jarul euh, tudd euh, ay nit wala tudd ay lobby wala tudd leen parce que entreprise bi toll na fenn foo xam ne bu nekkee si yoon warul ragul ragal lobby yooyu nee naa la alhamdulilah rek lañuy ñuy bàkkoo ñun. bu ñuy def projet bi. Euh, effectivement peut-être à mon ci une euh, euh, erreur de mm, de perception aussi concurrence bi mhm. ni noon ne Canal France la ñuy xeexal et cetera parce que mooy moo nekk ci mhm. mais ku on boo xoolee Asonara Canal Sénégal di nga xam problème yu bëri yu ñu à rencontré du neen donc mais taxul nous terewuñu ah, ñu def transport signal bi mhm. euh, ñu ñu respecter son engagement terewul tamit ñu euh, yegg fu ñu yegg mais la seule différence bu am entre euh, ñun français euh, français ñom bu ñuy ñëw di investir en Afrique ah ñom ils sont solidaires amna ben benn phrase bi ñuy bind sax ñom boy dem en Afrique faut chasser en meute c'est-à-dire il faut nga ànd ak ñoom. Mm-hmm. banque française yi société française lay jappal nañu waxante dëgg ah lepp lo gis. Mm-hmm. Euh, le font ensemble bien sûr l'ambassade de France l'ambassade euh, français rek la <laughs> c'est ça son rôle donc euh, on est en Afrique et nous savons que l'importance mm-hmm. importance ou présence française en Afrique c'est ce ko bañ ñu nank nank, ñu et mm-hmm. on a heureusement pour nous des autorités assez fortes pour nous fii mën nañ ko toléré lii mënuñ ko toléré dépend que si ku ne xam fi nga wara mëna yam a xam fu nga war a mhm. et c'est la même chose pour les euh, pour les Marocains aujourd'hui il y a une banque marocaine qui appuie les entreprises marocaines xam nga donc cette solidarité bu gars di manifester momul mhm. suñu biir nañ ko te deug parce que boo xol ci presse bi sax c'est la même chose aussi. Euh, malheureusement, euh, pas mal de patrons de presse ne se parlent pas. Donc il y a pas mal de problèmes qu'on ne peut jamais régler. Mhm. Donc euh, c'est un environnement qui n'est pas propice pour développer l'entrepreneuriat sénégalais. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. en ce qui me concerne, mhm. de beaucoup d'efforts pour nous accompagner. Euh, on a été reçu par le chef de l'État qui nous a bien compris, qui nous a soutenus. Mhm. Ah, euh, damay wax ak sama il nous a il nous a permis d'avoir accès à des financements qui nous étaient euh, complètement fermés maintenant euh, Lucides Moy, mooy jom ful ak fayda nañ pour yeggali ko. Mhm. boo waxee financement yenn a yi mbar dafa am ay banques banque qui ne bii.

le projet est entre de bonnes mains. Par la grâce de Dieu, Alhamdulillah, euh, on a le financement pour le terminer. loolu moo ëpp important après xeex bi euh, bu bu bu bu jotee euh, dañu ko xeex bu mat parce que tamit euh, waruñu fàtte ne dañuy dénk dara yaakaar na fi di ñu si xaar tamit. muy ñoo xam ne gëm nañ ko mën nañ ko def ak ñoo xam ne gëmuñu ko mënuñu ko def donc après. Euh, bu ñu toog ni di jooy ne waaw kanaal yi banque yi fii mhm. on va louper l'essentiel mhm. lu war a wóor nit ñi rek mooy euh, projet bi dinañ si diñ ko yeggal si jàmm ak salaam ñëpp dinañ euh, rafetlu liggéey bi mhm. xëy yu bari des na mais fu ñu fu ñu nekk ak lu si des moom dinañ ko yeggal si jàmm ak salaam voilà boo waxee décodeur TNT au delà nit ki toog këram mën ci jàpp télévision

bu la neexee tey mën nga seetaan 2S euh, enregistré euh, TFM mën nga euh, seetaan RTS enregistré TFM ak beneen chaîne tamit. Mhm. donc man nga seetaan DTV enregistré. waaw xam nga bu ma waxoon DTV dama préféré wax. xam naa yeneen yi. Mhm. parce que tooguma fi pour. pour DTV pour DTV tooguma fi pour RDV. damay ragal nit ñi xaw a fàtte ne. Mhm. que Excaf. moom moom DTV moom moom euh, RDB. mais mhm. dans le cadre du projet. waay loolu moom. amul affaire chaîne télévision. amul chaîne télévision pourtant am na benn question boobu bëgg naa nga xaw ma ci leer un peu. Mhm. au début bi ne waa Escaf ñoo gagner projet TNT. Mhm. am na télévision yu jóg ni ñun tam mën nañu ko yor mel dañu jàppoon ni kon euh, ab télévision rek. moo xam RDV moo gagner groupe bi. moo gagné projet bi non c'est deux deux projets totalement différents. c'est-à-dire aujourd'hui expérience bi nga soxla. pour def euh, pour yor télé. ak expérience bi nga war a soxla pour def lu toll télé TNT. Mhm. bokkul traitement eh, eh, eh, bokkuñu sax métier. Mhm. Euh, daanaka Excaf euh, ay télé yu bëri mu leen di jàppale. Euh, bu ñu bëgg monter seen émetteur bu ñu jaaxlee wala bu ñu am problème mhm. loolu jarul bàkku suñu rôle la. ñu ngi jàppale RDB ñu ngi jàppale DTV aussi expérience bu mu laaj mooy liggéey ay fibre optique. Euh, installé émetteur euh, xool satelite bi jàpp euh, beneen beneen métier la. beneen système la te mhm. système boobu heureusement pour ñun état comprendre na ko. Er, état accepté na ne Excaf mën na def liggéey bi mais Excaf tamit dinañ ko tegal ay benn cahier de charge boo xam ne du faral télé yi mu yor. te loolu. Mhm. rafetlu nañ ko bu ñuy commencé télé yi patron de presse yu bëri. Mhm. saluer nañ que Excaf moo ko yor. parce que suñu xam-xam ak suñu mën-mën. ñoom bu ñu soxlaa dina leen si jàppale dina leen si euh, fekk si génn si ay jafe-jafe. te loolu euh, je pense que euh, c'est à saluer de la de, de leur part. voilà yaa ngi nekkoon sànq ci mbirum avantage bi consommateur bi war a mën a am ci décodeur TNT bi eh, bu rombee jàppum télé bi mm. ay changement yu rëy mën na am par rapport ak décodeur bi ak fa mu yóbbu askan wi ëllëg ci mbirum numérique. waaw waaw mais xam nga euh, aujourd'hui dafa am changement léegi télé yi. Mm-hmm. continue moo koy yor télé bo xamné ne euh, avant dañuy wax RTS rek mu couvrir tout le territoire. Mm-hmm. légui RTS mënatul bàkk lolu chaîne yépp ay couvrir tout le territoire même qualité de service même qualité d'image même qualité de son. Mm-hmm. Euh, concurrence bi ak combat bi moy si qualité contenu bi. programme yi ngay programme yi. Mm-hmm. nit ñi ñoy xol fa lañuy sétane nit ñi ñoy sét parce que ku nekkoon Ziguinchor am RTS kese RTS rek mu sétane légui concurrence bi si qualité contenu bi la. légui xaalis bi nga doon jël pour jël ben émetteur de qui investir euh, de qui investir euh, Ziguinchor mhm. comme teggeeku na la war nga mën a am pour investir si contenu de qualité contenu yoo xam ne suñuy doom mën nañ si mhm. euh, éducation formation sensibilisation te loolu yëpp TNT mhm. bi moo koy permettre parce que charge yu énorme yoo xam ne télé yi ñu ko doon supporter dootuñu ko supporter je pense que ñu avons ñun en ce qui nous concerne en ce qui concerne ESCAF plutôt que société de gestion bi ñuy xaar gars yi créer parce que si on ñu toll mhm. ça fait maintenant deux ans que l'ESCAF a supporter l'ensemble de ces charges là Les sociétés de gestion même télé fayu mhm. pour pour pour redevance man euh, l'état, on n'est pas habilité à facturer parce que c'est la société de gestion qui est habilitée à facturer les les mhm. télés mais il faut qu'on équilibre euh, ça donc il y a euh, cet aspect là l'autre aspect c'est la yi ñun tamit mën ci gis seen bopp parce que avant da nga ñëw si télé nga né amna ben série ah, série bi ni la télé bi né la ok mën naa ko diffuser bu ñu publicité nañ partager euh, bénéfice mhm. maintenant avec la TNT il y a une plateforme VOD ni ki né mëna né man sama série bala ma koy diffuser nako def ci plateforme VOD bi ko bëgg sétane da ngay fay pour sétane ko avoir un retour sur investissement ba pare proposer ko ben télé donc même ñom dina ci gis seen bopp tamit mhm. té lu bari dina changer du dina changé ci tamit mën nañ euh, émission diisoo euh, bu janvier ku ko bëgg seetaan da ngay fay cent franc am na benn archivage boo xam ne yeneen émission yi passé yëpp mën nga donc ce sont des euh, revenus additifs pour pour télé yi télé dina si gën a am xaalis dina mën enrichir son programme investir am archive et cetera ñun dans le cahier de charge émission yuy jàll yëpp du 1er janvier au 31 décembre c'est notre engagement de faire enregistrement bi def archivage euh, continu donc demain même l'archivage audiovisuel du Sénégal nous va le faire à travers ce la TNT l'autre chose aussi qui est important la euh, mesure d'audience chaque fois vers la fin de l'année vers novembre décembre te mm-hmm. ku day pay deux ak TNT c'est c'est c'est c'est vite fait cest à ku nekk ba seetaan yéen ci seen centre yi ngeen am ci émetteur yi. Mm-hmm. am ngeen seen boo xamante ne bi mën na mesurer ban chaîne lan gën a seetaan ci biir dakaar wala ci biir Sénégal. exactement ban heure ak ban émission. waaw waaw donc loolu sax ça permet euh, ñuy jëfandikoo publicité xam bu ku nekk Ziguinchor lan lay seetaan. Mm-hmm. ku nekk Kédougou ban émission la xam ne loolu tamit am naa njëriñ ñu bëri. ñu agence yi def loolu tamit mu nañ si xam et même Sénégal yi xam réellement.

ca mi ngi dox incha allah da ngeen gën a kontaan ci am qualité d'image qualité sonore bu gën a baax ngir ñoom ñi koy jëfandikoo toog seen i salon de seetaan mën a xam ne lii ñu def seen xaalis jënd de ko dër am ay abonnement incha allah duñ ci am leen leen naqari waaw xam nga euh, loolu euh, jar na wax tamit euh, sénégalais yi dama bëgg ñu xam ne que lépp lu ñu mën def muy ñun famille bi muy employé Excaf parce que tamit waruñu fàtte employé Excaf ñu si bëri ci projet bi Euh, ñu ngi siy parce que euh, gàllankoor yi ak rëq-rëq yi ñu kii sacrifice bu ñuy def. Mm-hmm. fàttewuñ ko te ñu ngi koy ñu ngi leen siy gërëm tamit euh, xam nañ que buñ si génnee. Mm-hmm. société bi la ñu bëgg pérenniser. 45 ans lañ fi tool bëgg nañ yeneen 45 ans 50 ans dañ ñu continuer di wax Excaf. Mm-hmm. œuvre sociale yi ñuy def tamit ñu mën ko def parce que bu may lim. partenaire la wax que am nañu école arabe on a au moins 3000 personnes élèves yoo xam ñu ngi fiy jàng te kenn fayu leen te ñu ñooy jël charge yooyu. donc c'est une attends DG loolu dafa war a leer kon Excaf am na école arabe buy jàngal ñetti junniy xale ci kenn du fay dërëm. non non loolu parce suñu ADN la loolu loolu ADN Excaf la man euh, du mu ko du mu si du mu ko namoo sama pap moo ko fi bàyyi. Hmm. te loolu la ñuy wéy donc euh, dama bëgg xam rek kër gi ni ñu ko sa euh, sancee dafa nekk kër goo xam ne. Hmm. day law rek par la grâce de Dieu. dina am rëq-rëq dinañ am ay difficultés. Hmm. dinañ xam dina fakkastalu. mais dañuy jógaat mais lépp dañ koy saafara nag dañ koy saafara bien sûr parce que day jëm yàgg mu feebar faju weer <laughs> voilà entreprise bi tamit il mhm. faut ñu xam ne que euh, projet bi di si tool mhm. euh, jeex na ka daanaka euh, décodeur yi moo si manqué ñu yegg li Kolda Sédhiou mhm. et puis toog ak nguur bi boo leen fii lañ ci toolu ñoom ñu mesurer ko. Mhm. ne boo mun nañ commencé dakaar ñu fi Dakar mun nañ commencé fii commencé fee vérifier tamit que sénégalais amul benn sénégalais bu bëggoon am décodeur te ko. Mhm. ñu jàppale sénégalais yooyu. ba ñu mun ci génn si jàmm ak salaam. Mhm. kon ma si na wax di comme décodeur bi nga xam daana manqué ay jamono. rupture moom du amati ci stockage tout le temps da ngeen mën am dëkk de rue Sénégal yi man di am ca partout au Sénégal ndax léeg-léeg nga dégg man par exemple man dëkk Touba am ku ma wooyee Touba na Amadou ah, Mbacké yaa nekk Excaf noonu maa def ba am dëkk de rue bay Excaf bi waaw xam nga actuellement nii équipe bi ngi Touba ñu ñuy dégg nekk Touba bu mhm. ñu wootee am nañ fay partenaire mhm. dëkk de rue foofu mhm. euh, bu ñëwee Dakar fii tamit am nañ fa am nañu ay emplacement ñuy jël yoo xam ne euh, ku soxla dëkk de mën na ko am mais nak euh, en plus de jaay de couleur bi lool rek amul yamuñu ci euh diñuy former ay ndaw yo xamné bo amé problème bo ñëwé mën nañ fa ñëw ay ay techniciens ay techniciens tay yi am lancé nañ campagne néméku sa TNT parce que de plus en plus diñuy euh xol né sénégalais yu bari ni ñuy brancher sen de couleur du non lañ ko war défé mhm. té tamit suñu rôle ak suñu devoir euh pour informer nit ñi que mhm. yoon bi la former ay ndaw on a un centre d'appel boo xam ne 45 nit ñu ngi fay liggéey en chiffre ça fait quand même 45 fois 3. Mm-hmm. ñu fay liggéey 24 heures sur 24. Ouais. bon jusqu'à 22 heures quand même pour être honnête. Euh, pour euh, ñu informer nit ñi ku soxla ku am paan ku am mm-hmm. lu ko jaaxal wala lu mu xamul bu ñëwee ñu saafara ko. Mm-hmm. am na ay quartiers yoo xam ne suñu ndaw ñu ngi fay dox guddeeg bëccëg di woo nit ñi bu ñu amee problème ñu mën euh, ñu mën ko saafara. au total mille personnes. ah di leen basé à travers tout le Sénégal xam ne gox boo munti doon juróom-ñeenti junni ci ay doomu adama ay techniciens ay techniciens ñoo xam ñoo leen formé projet Excaf bi ak ñu ngi leen di formé bu ñu xoolee ne par exemple Louga dañuy ñëw ba foofu xool techniciens yi fa nekk ñëpp ñu wala ni ñu branché décodeur bi ni ñu branché antenne yenn antenne ñoo baax mhm. parce que am na ay antennes yuy dugg si dëkk bi baaxul tamit mhm. parce que euh, bu ñu gisee ne antenne bi dafa yomb rek peut-être que li ngay seen si qualité image mun n nga ko bañ am donc ñu ngi leen di former pour ñu xam ne gox boo mënti dem am benn technicien boo xam ne agréé la mm-hmm. identifié nañ la parce que dina leen jox ay badge ah pour ñu xam ne boo ñëwee ñu xam ne ak ah, kii Excaf la bokk mm-hmm. pour ñu xam ne euh, mun na ñëw régler sa antenne mm-hmm. euh, def ko nu mu nu mu nu mu gënee waaw loolu tam c'est important xam na suñu émission mi ngi xëcc jëm ci jeex dañuy ñëwaat ci kër gi yaa ngi tudd sànq ak travailleurs yi liggéeykatu Excaf yi léeg-léeg ni nga ko waxee sànq ñëpp ñoo bokk ci ngoy ci projet bi di sacrifié wu ngir projet bi mën a mucc ayib du ñax tamit ñu ngi jub li nga xam mooy tabaski nga lancer benn message à l'endroit des travailleurs d'Escar Telecom. waaw euh, bon euh, on a commencé après euh, pour la tabaski am na ñoo xam ne si euh, ay jafe-jafe lañ jógee woon donc euh, am na ay waxtaan yi seq ak syndicat maison bi ak employé yi mm-hmm. ku nekk problème loo munti am. Euh, bu dee mu ñu faj lépp tamit ñu ngi siy jëm lu ñu si mën euh, lu ñu war a xam te gëm ko mooy lépp loo xam ne ñu ngi koy def euh, bu may wax man famille Diagne laay wax mhm. pour que entreprise bi fondation yi gën a dëgër mhm. ñu mën ko pérenniser pendant dix ans vingt ans mhm. ñoom ñu xaj si ñeneen ñëw fekk ñu si tamit ñu ngi koy def ku jël lu sa ay alalu bàyyi dénk bàyyi fi teg ko si ay loxo banque pour mun liggéey ñun caaxaan taxuñoo jóg dinañ am ay rëq-rëq nag dinañ ko dund ak ñoom dinañ ko dund ak employé yi euh, buñ si génnee tamit employé yi ñun dinañ si jëriñoo parce que ñun ñëpp ñoo bokk Excaf mm-hmm. euh, sama dafa dafa wax ne sama doom bu ma gënal si doom yëpp Excaf la te loolu nag euh, ñu ñuy doomam fàttewuñ ko mm-hmm. si loolu la ñuy wéy incha allah dama lay gërëm bu baax monsieur le directeur général du groupe Escaf Telecom, monsieur Sidi Diagne beneen message boo bëgg a quelques secondes pour toute émission bi. Euh, message bi mom euh, ben la moy euh, may ngi gërëm ñu ma ñëpp ñu man samay frère ñuy envoyer message personnel bi di len encourager di nous soutenir ci projet bi di gëm lu ñuy liggéey di wax ñoo xamné ne xam nañ bëgg nañ Excaf.

ñu si xool di bind turu sunu suñu doom benn baax yëpp. Mhm. xëy na lu wut moy diviser la famille. Mhm. euh suñu famille bo xam euh seen pap lañu gëm. Mhm. gëm nañu Excaf tamit te lolu kenn mënu ko dindi je vous remercie. merci beaucoup PDG groupe Excaf Télécom la woon mo nekkoon tay gan ak émission 10 muy tay émission spéciale hein parce que tay dañuy waxtane gescaf mais lima ci met rek boy des fois pour am la nga communiquer dafa jafé lol hmm. lan motax nga ragal euh, média yi do communiquer lu bari da nga xam sax ñu bari xamuñ ko ci Sénégal hein ñu bari xamuñu la xam nga euh sama papa dund na tamit ba euh, yaré jël fi ko te ñu bari xamuñu ko euh da doon né euh bayil sa jëf wax pour yow euh boy tok temps euh, te kenn gisul li ngay jëf euh, amul importance te toll nañ si benn projet boo xam ne euh, mënoon naa ko def ba mu yegg bugguma sax kenn ku ma gis parce que euh, man diñ ma jiital rek mais ñu bari ñoo koy def ku jiite cinq 507 personnes mun ma toog di ne man maa def ñoom ñëpp a def c'est pour permettre à d'autres ñu gis seen liggéey parce que on est quand même une équipe yoo xam ne même balayeur bi am na importance parce ku ñëw gis sa biir rafet gis si suuf mu salte <laughs> amul benn importance <laughs> munoo je me rappelle que dafa waroon ne dans l' entreprise kuy bale ak ku lay wuyu téléphone moo peu important parce que su lañu xam ne nga euh, on te respecte ou on te respecte pas mais euh, tey mu ñu moon bañ a ñëw pour euh, waxtaan bi mhm. mënu moon bañ a ñëw tamit pour rassurer le personnel mais wax ni yàgg naa ko bëgg ah interview bi waaw <laughs> waaw mais euh, gars yi nañ lu jot yomb. c'est vrai mais yàlla ñu gisee waat si ay ameen boo xam ne dinañ ko duñu wax si ay problème waay dinañ rafetlu suñu liggéey. dinañ vanté wu méritu sénégalais yi dinañ vanté wu mm-hmm. entrepreneuriat sénégalais. te euh, dinañ gis suñu jëf. moo gën ñu may gis man man man je suis le dernier maillon de la chaîne. jëf yi mu ceeb solo. voilà jaajëf kon incha yen ñi doon bàyyi xel seen télévision DTVM. beneen talaata beneen gan ween waxtaan ñu wéy di ànd ak programme DTV jàngeen jëf PDG merci beaucoup. merci